c'est Al Haïbou TV la télé qui xalaat loo Al Haïbou TV alhamdulillahi ala tiiful xafaar wasalaatu wasalaamu ala nabil muxtaar wa ala subhanaka la ilma lana illa ma alamtana innaka anta halimul hakim assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu mbokk yi ñëwaat nañu yéen ci jotaayu xam-xam bi ñuy am ak bu nekk di seen jotaayab njàngaleb mag ñu baax ñi fi jiitu woon ñun nag ñu tànnoon ci njàngale menn mag mu ñu wax maam Seydul Haaji Malik demoon ca kàggoom mu bëri téere lool fa tabaarakallaahu ñu rocc asi téere su néew ay kayit te njëriña làmbu àdduna làmbu alaaxira muy téereem bi mu tuddee sajarul xulóob sajarul xulóob di ci jaajo xoli an bi daarul xalóob ñu amoon ak yéen ñaar fukki jotaay ak juróom-ñaar tey war a nekk sun ñaar fukkeelu jotaay ak juróom-ñett ci kàttanu yàlla keroog bi ñuy yëkkati jotaay bi ñu ngi tegoon sun loxo fi maam di waxee ne ayan faxu man laa yan faxu xayra nafsahu wa man laa yaqi durra kon kay fa kay fa yusibu naka la ki nga xam ne munta jariñ boppam munta teetal aw boppam tamit lor kon naka nan la koy defale foofu lañ tegoon sun loxo kon tey ñuy commencé fi maam di wax wal asiya u turan xabdu turabina ah la njëkk ak loolu nag ñuy am lu ñuy jiital rek ñuy li ñuy wax ah, sadaqatul fitri wala sakkatul fitri ah, fa tabarakallahu mm, ak sax guddi goo xam ne laylatul xadr nga xam ne ñu ngi koy jéem a dàkk ci am yaakaar lool ci guddi gi Euh, loolu nag jaruñu ci ñëw démb li ci suñu sëriñ al oustaz xalifa siise def ci waxtaan rek fa tabarakallahu doy na sëkk euh, ñuy fàttalante fàttalante rek lay doon ñu amaat geneen jaamu yàlla bu ñuy jublu ci muy sakkaatul fitr di jaamu yàlla gu am solo yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fonkoon ko lool euh, fa tabarakallahu daar ko def ñu ciy fàttalante rek xam ne ñu ngi koy jublu ñune woon nañ ci def benn muxadimaat la njëkk ak ñuy dugg ci njàngale maam Euh, ndax ñi fi nekk ñooñu ko gën a xam ustaas yi fiy jàngale ñëpp euh, même ñi fi jàngale wul sax ci ustaas yi ñoo fi ëpp euh, fa tabaarakallaahu ustaas yi eh, fa tabaarakalla ma tudd ci rek Abdul sama sëriñ nga xam ne sunu magu daara nga xam ne ba ñu nekkee ci daara di jàng moom ba ñuy jàng ay risaala yooyu moom ma nga ci maqamatul xariir jëma ibnu malik fa tabarakallah kon ñu ngi li ñuy wax rek mooy fàttali rek lay mën a tudd fàttali gi nag duñ wax ñaata la ñuy joxe muuram koor duñ waxit euh, nu muy toll bu dee ci ñi jàpp ne mënees na koo génne ci xaalis duñ waxit ñaata lay toll bu dee ci ne noonu am na ñu seen xam-xam màcc ci loolu ba euh, def nañ ko ba pare ñun dañuy ñëw rek ci ñetti tomb ci lu gaaw dugg ci njàngalem maam bi ci njëkk mooy dañuy wax ne kan nga koy jox soo paree kan nga koy jox ak kañ nga koy joxe ak ñan nga koy joxe kan nga koy jox mooy na nekk faqiir di mu kàllaf di gor yooyu yëpp nag na ko jullit lal ñett ñooñu rek nga koy jox eh, na nekk ab ku ñàkk ba pare na nekk gor ndax boo ko joxee jaam jaam lu moom sanga ma ko moom na nekk itam mu kàllaf waaye loolu lépp na fekk mu nekk julit kon liñ ciy déggee moo di eh, nekk ci réew réewi tubaab yi gis kenn ñoo xam ne duñ ay jullit néew doole nga ne mën naa leen ko jox déedéet ab jullit nga koy jox kon ñooñu nga koy jox ñu ñëw ci kañ nga koy joxe kañ nga koy joxe nee nañ tajjibu bi awali laylati xiidul fitri bi nga xamee ne timis jot na sa fan bu mujj ci weeru koor wi ngeen gis weer wi wala ngeen am benn xibaar bu wane ne suba du ngeen woor li ñaari wax nag moo ci am mu leer na la suba du ngeen woor nga foofa nga koy joxe ñi njëkk a wax loolu la ñu wax ñeneen ñi ne ah déedéet fi nga koy joxe moo di tajibu bi tulooxil fajri yowmal xiidi eh, buñ weer wi feeñ na baca fajar ga bala ngaa julli ji diggante boobu nga koy joxe waaw kon eh, ñaari wax yooyu moo ci am mooy waxtu wu ñu gën a sopp ñooñu nag fi ñu sukkandiku mooy xadis ba nekk ca muslim yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee nañ fi mu ko daa diglee mooy bu fajar jotee la njëkk ak ñuy dem ci julleekaay ba Euh, fa tabarakallah ñaari waxtu yooyu daal moo nekk waxtu yi nga xam ne borom xam-xam yi génn nañ ko euh, baneen bi ci topp mooy lu dagan rek lay mën a doon nga génne ko ñetti fan la jiitu wala ñaari fan waaw moo tax ñu ne yajjoosu ixraaju ixraajuha qabla yawmayni wa salaasate nga daganal nañ nag nga génne ko ñetti fan la njëkk ak kori wala ñaari fan rek daganal lañ la ko daganal nañ mooy bu laneen amee waaye daal waxtu wi nga koy di génne mooy ñaari waxtu yu njëkk a wax léegi te loolu li la koy firndeel moo di ne boroom xam-xam yi nee nañ ci ñi ngi koy génneel euh, ki képp koo xam ne tey nga amoon soxna tey mooy séentu bi njëkk ñu gis weer wa ba fas yéene suba duñu woor soxna si am doom kooku doo ko génneel waaye tey la séentu bu njëkk ñu séentu gis weer wi ba pare fas yéene ne suba duñu woor dañuy wori am ci ñenn ci ñi ngi koy génneel ku ci génn àdduna da koy joxeel ndax war na la la njëkk muy génne àdduna kii nag moom war na la te moom ñëwagul kon doo ko ko joxeel fa tabaarakal ak kum ci mën a doon kon wax nañ kan nga koy jox ak nga koy joxe ci fiñ ko gën a bëggee ak li nga xam ne dañ la koo may dañ la koo daganaal kon ñu ñëw ci ñan nga koy joxeel ñan nga koy joxeel képp koo xam rek ab dundam yow la war muy sab jege ñëwaale ci ñi moo xam kal awlaadi doom ju mënagul wa sawjati wala soxna wal abidi wala jaam wa xaadimiha wala ku lay liggéeyal wal waalidayni wala se ñaari wàjjur yu mënatul sa doom ju mënagul wala wàjjur wu mënatul ñooñu yaa leen ko war a génneel euh, ñuñu nag liñ ci wax léegi itam képp koo xam ne euh, moo tax képp koo xam daal ab dundam war na la waaye nag na nekk ab julit na nekk ab jullit même waajur wi su nekkee su nekkul julit doo ko ko génneel doo ko doo ko génneel sa doomit bu nekkul jullit bu dee mbindaan mi kadaalika bu dee soxna si itam eh, du jullit bokku leen diine doo ko ko génneel doo ko génneel daal ku la dundam war doonte du julit waaye itam doo ko joxit ku dul kon loolu lañ ci doon indi ci mm, muxaddimaat ah xanaa di amaat la laneen rek ak fàttali itam fàttali rek lañ lay tudd Euh, bisub korite itam bëgg nañ nit ki balaa dem ci julleekaayo bu yeewoo mu naan wala mu lekk dara na dog rek wane na wóoru loolu nag wuute naag lool bu dee tabaski tabaski moom dañoo bëgg boo yeewoo doo lekk doo naan ba baa ngay julli ji ba ñëw kon fa tabaarakallaahu euh, loolu lañ doon jiital ci muxaadimaat kon ñu dugg ci njàngale maam euh, maam nee na wal tey dafa ñëw ci nit ki nangu ak xam dogalu sunu borom bi tabaaraka ndax dafa ne wal asiyaahu mbir yi turan mboole seen xabdatullaahi mi ngi ci nga bugg yàlla gi dogalub yàlla yàlla moo koy dogal laahi rabbina xabdatullaahi rabbina si yàlla mi nga xam ne mooy suñ boroom yusarrifuha moo koy soppi moo koy doxalee eh, dana ko soppi alxaribu ci lu jege fii ma ci num ko neexee moom daal lépp lu am yàlla moo koy dogal bu ci wërsëg ci doomu aadama yi Eh, nga xam ne kii mu jox la lii kii mu jox la mu tàllal la wala basta moo tax mu ne wal asiyaaw tu laahi rabbina boo demee ci alxuraan am na suñu borom bi tabaraka wa taala fi mu waxee ne walaw basata laahu risqa gis nga walaw basata bu tàlloon allahu risqa li ibadihi la baxaw fi l ard walakin yunasilu bi xadri ma yacha waaw eh, fa tabarakallah moo tax sax boo demee ca ibnu xaasir ma ngay wax ne dooma yàlla yàlla mbir yi moo koy doxalee ni mu ko neexee doomu aadama yi bu fekkoon ñoo sos seen bopp nim leen sosee la yore seen lépp ibnu asir ngay wax ne law xadas law adasat ak waanu akwaanu laj tàmmaxal tasaawi waruj aanu law xadasat bu ñu sosoon ñan al akwaanu bindee fi bi nafsiha seen bopp kon laj tamaa ñoom ñëpp dañuy booloo tasaawi di way yoomoo warucaan ak ak lënkaloo kon bu nit amee li bu la nga am ko ñëpp ñoo yemoo ci lépp waaye nag dañoo susul seen bopp lépp loo am daal li maam bëgg a wax mooy ci dogalu yàlla lay amee eh, suñu maam Mansour sax bàyyi xalifa bi Serigne Babacar Sy Mansour maam El Hadj Mansour waaye na ko ca yaa ca yaa ayaa xaaliqi ca yaa ayaa xaaliqi eh, ne wamaal abdu illa fi masiati rabbihi taduuru taduuru bihi l aqdaaru xaysu yaduuru waaw wamaal abdu déet jaam illa fi masiati rabbihi lu dul ci Eh, ci masiha boroomam tadooru tadóorul aqdaaru xaysu yadooru waaw moo tax mu ne loolu boo ko xamee rek fa sallim ilayhi nafsa nax bi ma yasaa fa laysa siwaahul ilaahu xabiru waaw ah, fa tabaarakallaahu eh, kon mbokk yi foofu la ñuy yem ci njàngale mbindum maam tey benn bay rek la ñuy jël ndax liñ bëggoon def ci eh, fàttali ci sàkkaatul fitri te sàkkaatul fitri lay xamal ne moom loolu rek lay kii ndax asakay dog la tudd asakay dog kon mënoo koo génne la njëkk ak ngay dog eh, lu am solo la nag ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fonkoon na ko lool te dafa bokk ci njëriñam dafay laabal sa koor gi tuxiru li zaimi min al-laxwi wa rafas te itam wa taxammuhu lil masakin da ngay laabal sa koor gi ci laxu ci caaxaan ak ay waxi mbóorantoog ak yeneen yu manki manki yooyu yëpp arakay muroom koor da koy jàng am na sax lenn ci wax rom xam ñu wax sa digganteek asamaan boo ko waree fi lañ koy aj waaye wax jooju am nañu ko uh, dayifal kon waaye lu mën a am daal lu Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam digle woon la fonkee ko lool wax nañ ñi ngi koy jox wax nañ kañ nga koy jox wax wax nañ ñi ñu koy joxeel itam kon yàlla nañ yàlla defal tawfiix nangul ñu sunu koor te itam bu mu nekk suñu mujj koor ak suñu mujj joxe asaka uh, di wax ne ñu ngi jéggalu nag ñëpp rawatina doomi soxna yi nekk ci biir li lépp di jéggalu itam suñu wàjjur yi fi nekk ci daara ji bu benn wax bu fi ñàkk ormawu ndax itam euh, doomu aadama moom njuumte da koo yomb yonent bi sallallahu alayhi wa moo ko wax rawatina ci lii ñuy def muy wax ndax ndax dafa ne inna aksara xataaya ibnu aadama fi lisaanihi doomu aadama njuumte yi ëpp ci yi muy def ci làmmiñam la nekk waxaat ci beneen xaddis ne kullu bani aadama xataa wa xayru xataa ina attawaabuun doomu aadama yi Eh, fa tabarakallah di wax ne yàlla nañu yàlla boole ci ñi nga xam ne bu ñu déggee wax rek dañuy topp xool la ci gën a rafet ñu topp ko yàlla nee na ñooñu ñooy ay boroom ak jub te ñoom itam ñooy ay boroom xel di wax ne hada ma ahlam walaaw ahlam fa ma kaana min tawfiqi fa min allah ndax ilayhi tawakkaltu wa ilayhi unib alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib eh, ma kaana min taxsirin nag aw xatahin aw suuxi fahmin fa min nafsi wa min a seytaan waaleykum salaam wa rahmatullah